la sama gaay kon ñoo ñëwaata ak xaadim Baye Fall tey xaadim nag dafa mer nag te añut réerul añut ndax dañoo daan mbërëm démb naroon naa teg saretam ndax booy ñaa booy melax nag yey na ko voilà léegi nag réaction xaadim lañ bëgg a xam après combat bi xaadim lan lan lan ngay wax ci après combat bi. waaw ah combat de xas-xas loola man sax sur sama biir wax damay wax maanaam ginnaaw ba ñu nuyoo sax nañ nuyoo ba pare salaamaaleykum wa rahmatullah nuyu nañ leen ku nekk sa tur sa sant di sant Cheikh Rafal ak njabootam gi njab kilifa diine yi kilifa aada yan lañ fi yàgg te wér ndax mënuñoo dem baleen ñoom mënuñoo dem bañu bu ñu demee bàyyi ñu ñun dañuy coolle waaw. làmb nag ci lañ duggoon démb semaine bi yëpp ci waajaawi làmb lañ nekkoon muy Modou Lo Boy Niang yàlla may na Modou Lo ndam yàlla na ko jig Boy Niang démérité woo. maanaam chance la njëkkalante la suñu borom jagleel na ko Modou Lo yal na ko yàlla maanaam defal jàmm yéen ñëpp ndax suñuy rakk ngeen suñu jërbaat ngeen du dégg léegi maanaam yow dangay defar waat bàyyi xel maanaam li sa kanam so maanaam xele du geestu defar waat yokk cere dolli ñeex topp maanaam mbeexum géej gi entraîné wàññi dem bitim réew gi la ca tegu la ca tegu mooy yéen kilifa yi nga xama ne maanaam yéen ay dem ci làmbu xele yi ndax jur doom doom dafa metti te làmb xam nañ ne njàmbaar moo cay feeñ yóbbu sa doom ji nga jur ca làmb ja mën naa ñàkk mën ngeen a dem rek waajal ko des ci kër gi mu dem ànd ak ay moroomam ndax xel yi xam nañ làmb waaye doon waajuru nit yóbbu sa doom ca làmb ja toog am yaakaar ne mooy daan suñu borom dogal maanaam ci biir maanaam làmb ji ñu dóor ko mu kawo bu fekkee lii ñuy woowee cardiaque mu ngi ci yow mën na laa arrivé boo du jàmbaar ndax man mi démb dama doon lox ay kayit laa mujj di ko yëy di ko sàqami ndax maanaam tiit ndeke tiitaange googu moo may rey te dama doon bëre waye dama tital ay mbeur bu ñuy waja béré man duma ma fen ndax lamb dama ko xam du lefu tiaxaan yeen kilifa yi ngeen dimbale ñu rek di yeb xale yi ñu dem ngeen dess ci kër gi ndax bu doon ci ceetu séeréer bo mouré sa dom yow ndey mon nga and ak mom dem dem manam sa kër goro waye dañ lay mour dess fi manam gënaluma dal wax dëgg gënaluma to arbitre dinaa ci waxaat waxoon naa ci dinaa ci waxaat làmb ji démb yoonu avertissement ñëwu ca ndax làmb ji dem ba arbitre génnee loxoom man damaa jàppoon sax ne nit ñi dina am ku ndax amut wajai, amut taxaw fee kee taxaw fee lewaatoo bu diib amu ca ku nekk da nga yàkkamte affronter sa morom arbitre yi ngir yàlla ya-, ngir ngir yàlla dañ leen koy ñaan bu leen ni muy manam ñu dimbale leen ñu dimbale leen ñu xool làmb ñi ñi nga xamante dañ koo maîtriser ñu yor soufflet yaak boulisson ya ndax démb làmb ji amu ca yoon ñu waxante dëgg ñun ñoo ñoo seq làmb ji amu ca yoon ndax ku ci ne da ngaa yàkkamti affronté ak sa morom xaalis bu ngeen dagg mbir yi nag yoon ci normalement yoon da leen koo delloo automatiquement grand combat bi ndax démb sax yu ndaw yi damaa fekk ñu jeex waaye yu ndaw yi dégg dafa gaaw noonu la gaawe too mbir yi am tuus jar muy bari ndax combattant dafa laaj maanaam sa yaram xam ne ci com ci compétition la jëm muy maanaam teel a pare teel a taal teel a yëkk lañ ci wax baax na ci combattant ndax ndox mi ngeen di sotte koo dafa bari to na sëdditu doomu aadama sëdditu doomu adama rek la mën a ne loo ne entraîné jàpp jàpp jàpp jàpp boo sottee koo ndox mu bari ci jamonoy seddaay am na miskil yi muy téye ndax saar yooyu daloon na fi baabooy ba mu am déchirir ba komba boobu foog naa dañ ko mujj annulé te ñun ñëpp ay combattant lañ xam ngeen li ma leen di wax yéen ñëpp ndax Dakar dafa sedd rawatina pax mu ngeen di ne dem naa fa ñaari yoon stade bi fi mu nekk dafa sedd ndax dafa sës ci maanaam am ndox ñu sóoraale maanaam xappoo garab yi. ñuy teel a xappoo ndax mën ta ñàkk xappoo bi mën ta ñàkk ndax maanaam ki ngay bere sax taxut ngay xappoo waaye làmb lu ne ci gane ji ndax làmb mbiri saytaani la ndax yenn saay maanaam ni di lox bo boo na du des dara lu mooy daa ndax dem rek gis na koo xamante ci image su télé bi dafa tëdd ci diggu suuf si ndax bi booy ñaa daanoo to xam naa ne booy ñaa la faraloon man damaa mënta tëdd rek xaadim Baay Faal waaye wax dëgg yàlla moom bëggoon naa tëdd sax mel ni ku xam ndax maanaam gis naa bere ba kurpeñ ba kurpeñ yi ngeen doon joxante ku bi ma ci gën a ragaloon suñu borom dafa dogal dalut muy kurpeñ bi romb bu moodloo bi bi booy bi boo ñaanee nii kurpeñ bi maanaam bi ma bi boo ñaa iskiyee kurpeñ bi kurpeñu loo jàll ca kaw de man alhamdulilah rabbil alamin fi may seetaane ndax damaa xam korosé ba bu daloon day ñaaw day xam bu daloon du baax ñun ñëpp ay sportif lañ fair play la mais ñuy sóoraale maanaam xeexu Modou Lo ci gune yi xeexu mbedd par rapport ak xeexu box Boy Niang mën na bëre bëre bi nga bëre yëpp dem dara defoo ci benn défaut amul défaut mais maanaam fenn rek la amee défaut song ci senu bi senu bi boo ci jàppee bu ne nii say loxo dañuy laal suuf te maanaam ponkal mu daan ponkal mu la tiim nii say loxo ne ci suuf maanaam day mën naa am Euh, pour nga jóg day difficile yàlla boo jël ku boo jëlee coup maanaam maanaam rëpp say loxo ci suuf pour nga jog day doy waar ndax ku dafa garaaw feeñ na fa démb mbir en général boo koy jël da ngay comme waxoon naa ko ca interview ba contre Mbaye Babacar cong dafa am ñaari façon cong ci kiwis derrière dafa aajo maanaam bopp cam naq ci naq song ci kiwis derrière mais song ci senu a général ci ku yo xele bu mag yor poids worut ndax manam bu xawé xawee boromam bu ne ni rek lal tankam ci ginaaw rek mën na am sa loxo res dug ci nyu suuf ci to manam bala ngay sigi ndax yi ñu xele yu ndaw yoyu bala ngay sigi manam lu ne xej na fa naw naaw gi mu naw ci kaw naw gi mu ne bëreet naw ci kaw oh boyña boyña di donjok. jog gis na mo lamb ngemb la waaye ngemb la dafa seere mën ta am dara moo du xam ne mu ngi làmb mu naaw poloncé dafa poloncé ci kawam foofa noona maanaam Boy Niang day daal di perte équilibre foofa a toog rek moo fay des lii moo xew ci làmb ji démb jili ñoo ngi lay jaajëfal sa waaw jërëjëf